صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm waaye di ko sàkku ci yéen di ñaan suñ borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu jàmmi aduna ak alaxira jàmmi biir ak bitti ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ñu am mbégte di leen dalal di dalee tamit suñ mbokk mi muy Adja Fatou di am contentement lool di ñëwaat ak yéen ci seen tontu bataaxal ci suñ jataay bi ci bis bu tedd bu màgg bi le ci fan yi nga xam ne fan yu tedd la yoo xam ne ngëneel am na ci lool nit ki di ko woor di ko taxawee mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen di ànd ak seen TV l'original di wax suñu gan gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya imam nuyu nañ la ziar la nuyu itamit suñu mbokk internet yu sen tv point info. mbégte ak contentement lay àndal dend ak oustaz ci seen tontu bataaxal. yaa oustaz wàccoon nañ ci terrain bi dénk askan wi suñuy micro ñu am ay questions yu ñu posé ngir nga tontu leen si dañu daal di dem seetaan reportage bi daal dellusiwaat. ayca bisimilah. Assalamualaikum warahmatullah. may nuyu ñep bo man ben question la am euh, concernant walu diine ji makay makay laccé moy xam nga diine dafa wax ne képp ku tàggoo sa xel rek diine topatu lo dara ñu la ay ay ay charte ci diine may lacc ko xamante ni xelam day parfois xelam day dem mu jékki-jékki dof jékki-jékki wër koku nan la ko diine di até ak ah, ko xamanteni dafa jëfëndiko mom day jëfëndiko lo xamanteni ni daf koy doflo koku aussi diine ji lan la la ci wax quoi ñaar question bobu la bëgg kuma kuma ko leral parce que en général nit ñi dañuy dañuy jëfëndiko lo xamanteni daf lay doflo sa xel dem diina topatul dara nga nekk ci lila neex yow. wa si walu diine dal euh, xamna ci si lu bari mais amna yenen jafé jafé Si compréhension lan moy waref góor gi vis-à-vis ci jabaram sama question moi. lan moy waref jëkkër gi ci jabaram waref bi ci dundu bi ci entretien bi l'islam lumu mu laaj góor C'est mu war jabaram ci tamit euh, sama deuxième question moi est-ce que l'islam recommandé na ki na baye jabaram mu dem liguey si ginnaw liguey bobu lu muy amee est-ce que dafa wara rendre compte jëkkër gi ou bien mom mo xam lu wara a lu mu utiliser khalisam est-ce que l'islam lan la war si l'ol lan la wax si lolou si côté jabar gi vis-à-vis Euh, man damay laaj ci wàllu njaay parce que man si wàllu njaay laay yëngu am na ñi nga xam ne si wàllu njaay dañuy teg euh, bénéfice bu bëri am na ñi nga xam ne tamit dañuy teg euh, bénéfice bu ndaw ni lu ñu si am rek baax na mais damay dégg itam des fois ñeneen ñi dañu naan jaay daal loolu bénéfice boo si teg rek araamul parce que loolu ci sa ci sa liggéey la man tamit loolu dama si xaw a am des fois xel ñaar daal may laaj loolu tamit ba xam daal lu ci sariya wax beneen bi may laaj mooy des fois ñun dañuy wër di jaay mais dañuy tase façon góor bu nekk xam nga dañuy won tamit lu nekk di wàññi suñuy njaay wàññi njaay bi mooy des fois dañ lay proposer di la won affaire xaalis mu mel ni xaalis daf da leen tiital te am na tamit yenn genre jigéen ñoo xam ne ah loo leen won rek da nga da nga leen am mais man tam à chaque fois parfois si loolu dama ciy xuloo ñu naa ma déedéet kuy jaay du naqari deret te or ko loolu parce que man pour man damaa defoon boo jigéen di daan sa doole rek am na ñoo xam ne war nañ la si jàppale. asalaamaaleykum man la Moustapha Mendy daa am lu mu bëgg a laajte loolu mooy saatal niveau si lislaam voilà ñoo ko seetaanandoo yaa oustaz gis nga nit ñi posé nañu seen question mhm. ki ci njëkk moom nee na nit koo xamante ni dafay tàkkaliku ak sagoom mhm. diine topp ko ci dara waaye mhm. da ci am ñoo xamante ni day am yu ñuy jëfandikoo comme ay sàngara ay drogue ak yooyu te daf leen di tàkkaleek seeni xel ndax kooku diine dina ko topp si dara alhamdulilah laaj bi am na solo ci l'islam yàlla tegul bakkan bi nit ku meuna don lu mu atanul ndax lu yàlla tek nit ki rek lu mu atan la motax alquran ñu wax ne la yukallifu allah nafsan illa wasaha suñ borom tabaraka wa taala tokul jëf ben bakkan nit lu moy lu mu atan l'islam nak ki muy tek ay digele ki tere pour mu diko taxawé ak i jaamu yàlla dafa bok ci charte yi mu charte bu loolu la olof di wax mais baatu arab la moom la tubaab di wax critère waaw critères yi tax nit ki ak jaamu yàlla nekk lu war ci moom foog daf ci bokk muy koo xam ne ku am xel la xel ki nga xam ne nag amul xel kooku moom lislaam tegu ko dara waaye nag ki nga xam ne lislaam wàccoona ak moom mooy ki nga xam ne amul xel maanaam nit la ku xelam matul nit la koo xam ne ku xelam matul la kooka lislaam tegu ko dara ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ñuy wax ne rufiat al aqlamu an salaasa kali pilim bay bind ay bakkaar suñ borom tabaraka taala daf ko yëkkatil ñett mooy ki nga xam ne dafa ànd ak amul xel ba xelam del ci wat ak kii nga xam ne dafa nelaw ba yeewu ak xele bi bu demee ba nekk mag ba majeur nekk mu kàllaf su boobaa yi tamit dana war ci moom xeeti jaamu yàlla yi lépp njuumte lu mu def su boobaa yàlla daf ko cee bindal li nga xam ne mooy bàkkaar kii nga xam ne nag dafa sabab lu mbir ma maanaam moo am jëfandikoo lu ci mel ni sàngara wala dorog ba am xelam dem ak lu ko mënta ka gaar ginnaaw ga dañ ko koy bindal bàkkaar ndax mooy ki ko sabab wute nag kii nga xam ne nag moom sababul mbir mi gaar-gaar la boo xam ne yàlla moo ko def ci dundam ndax suñ borom mu ñu wax ci alquran ne lan yusibana illa ma kataba allahu lana ca suratu tawba ne dara lu ñu dal lu ñu gaar lu mooy lu yàlla binde ci ñun ndax kii nga xam ne yàllaa ko bindee noona kooku moom lislaam toppewu ko dara du ko jàppee dara waaye ki nga xam ne moo sabablu nag loo xam ne day yóbbu am xelam loo xam ne day muur xel mi ba la muy jëf dootu ci xamati dara kooku ak lu ko mënta ko arrivé gannaaw ga loola bàkkaar lay doon ci moom wallahu taala alam euh, léegi oustaz yaa ngi wax euh, affaire bu majeur euh, ci lislaam ndax mën nañu xam nit buy majeur ci lislaam ci ñaata at la war a toll wala nuñ koy xamee loolu moom diir la diggante la boo xam ne boroom xam yi dañ ci wuutee hmm. moo xam góor wala jigéen mais góor wuute am na ci am na borom xam-xam yu wax fukki at ak juróom am na wax fukki at ak ñett waaye fukki at ak juróom-ñett mooy limite bi gën a sori jigéen ki nag am na ñuy wax fukki at ak ñaar am na borom xam fukki at ak juróom waaye bi ci gën a sori fukki at ak juróom la gannaaw yooyu yëpp ci at la waaye am na ay signe muy ay jeexital yuy wane nekk kii ku majeur la ku góor ki bu demee ba gént loolu benn. signe la muy benn jeex bi wane ne kii majeur na wala mu commencé sax li nga xam ne mooy kawaru naq loolu tamit siñ la buy wane ne muy jeexit buy wane ne kii ku mat mu kallaf la wala boog mu demee ba am ay kawari poqataan loolu tamit euh, jeexit la buy wane kii ku majeur la. bu fekkee ne kii ku jigéen ki nag moom bu demee ba gis mbaax loolu tamit day wane ne kii mat na mu kallaf ak ñaari jeexit yi nga xam ne jot naa ko junj sànq. mu ñeel ku góor ak ku jigéen. lii mooy mbir yoo xam ne day wane ne nit ki ku majeur la amma ci at bi nag moom lu borom xam-xam yi wutee la at yi mooy jotoon a junj sànq lu am la wallahu taala alam macha allah yaa imam kii dafay laaj wareefu góor jëkkër ci soxnaam loolu moom laaj la boo xam ne jotoon na fi jaar waaye kon ñu baamtuwaat mbir mi rek ndax suñ borom tabaraka taala mu ñuy wax ne wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin del fàttali ak waare ndax loola dana jëriñ nit ki gëm yàlla di ko fàttali di ko waar di ko delloo si waat euh, boroom xam-xam ñi dañuy tënk mbir moomu ne foog mu dëkkal ko moom boroom kër gi dundal ko wodd ko ndax yii moom la war su ko defee mu téye ko téye bu rafet loolu la alxuraan di wax ne wa na bil maaruf nañuy jonjook moom ci njekk maanaam nañ leen di téye téye bu rafet li waref la go xamne lu war borom keur la dana ko dekkal dëkkoo ko dundal ko wodd ko yi moy ponk yi nga xamne mo ci dajje muy ñent bu ci nek nak dafa yaatu mene su lim detail bi mu tollu waye loolu la alquran digle dund ba gor gi la war way bi ko gor gi la war mais na len dekkoo manan dekk ak ñom ci jamm waye na ko itamit lu mu sol njabootam duñ sol mi ngi war ki nga xam ne mooy ku góor ki wallahu taala alam waaye imam yooyu nga lim bu fekkee am na ci loo xamante ne dafa manqué est ce que kon war na ku góor ki jël soxna bu fekkee ne dafa manqué ku góor ki war na xoolaat boppam xoolaat taxawaayam bu baax a baax xoolaat li ko tax a manqué lan la ndax moo ko sabab wala déet ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne foog war na mën a génnee joxe te yor ko te ne yoruma mm-hmm. léeg-léeg nga gis koo xam ne bëgg na joxe gaa mais yoru ko mais dari toog yoro d'accord bismillah mais nak yow yaa war a fàggu yaa ngir indi dara ci kër gi su Baba toogaay booba ak nit ki taxawé noonu su Baba mom lañuy wara war mbirum su Baba mom mo delu ginnaw waye mbir mi ma ngi tégué ci kawam mhm. Allah taala alam batay borom laaj bi moy laaj nee ndax euh, l'islam recommandé na góor baye soxnam di liggéey mhm. ak ndax lam cey am Euh, ndax ku jigéen ki la muy am ci salaire am yooyu. Mhm. ndax euh, farata la pour euh, mu jox ko jëkkër ji ndax da ciy rendre compte jëkkër ji wala mën na ko garder pour boppam. dana baax dana jaadu su fekkee ne mu bàyyi soxnaam mu dem liggéeyi yi maslaa la seen ci ñoom ñaar maanaam su fekkee arrangement la ci ñoom ñaar <clears throat> mu dem liggéey mm. mu bàyyi ko mu dem liggéey te loolu fekkee moo gën du indi ay gàllankoor ci seen dundin maanaam. jigéen gi génn bi muy génn dem di liggéey yi su fekkee ne du def jeexital bu leen arrivé ëllëg ci wàllu éducation seeni doom ak ci wàllu baaxu kër gi maanaam ci set geeg wàllu dundin bi su boobaa dara nekku ca mën na ko bàyyi mu dem liggéey yi la muy am nag moom du farata mu ñu jël ko di ko dugal ci kër gi ndax loola sharia tegu ko ki nga xam ne mooy soxna si kim ko tek mooy borom kër gi léegi nak borom kër gi mom mo wara li ne lu tek la ci man waye dana rafet dana jaadu nak ku jigen ki bu gisee ni ki sama borom kër la warna ko mën dimbalé ci lu béré béré béré ma jël sama ala dimbalé ko lolou yi rafet na lu bax la waye nekul farata nga xam ne bu ko defulé bakkar di ci war déedéet ki mbir mi war moy borom kër ga koko moy dindi ci kër gi suko baye ta tay ko daanab suñu borom tabaraka taala mooy mujj gàllu ci aw lo sam wallahu taala alam yaay nga fofu foofu moy wa am solo ndax euh, dañ nek ci jamono joo xamante ni ak ñima ko sañ wax góor ñi dañoo bëgg lu yoom mm-hmm. <laughs> dañu dem ba mm-hmm. dañ naan duñ sax mm-hmm. tak jigen bo xamanteni du liggéey waaw ak lu mën ta ga doon mo xam mën nañ ko tuddé bëgg lu yomb mën nañ ko tuddé leneen lu dul loola waaye su fekkee ne dañ ciy dugg moo xam ku góor ki wala ku jigéen ki te jaamu yàlla taxut yéene bu sell taxut mm. ay gàllankoor lay indil ëllëg ak duggiin ba nu mu mënta ka demee mais nag su fekkee ne yàlla rek a tax jaamu yàlla rek tax su boobaa it suñ borom tabaaraka wa taala dana ci jiitu dimbalee la ak ku mu mën a doon kon nag mbir ma du ñu ciy dugg ndax intérêt wala dugg ci ndax bëggalu lu yomb mm-hmm. ndax suñ borom ñu wax ci alquran ba tey ne ان الله لا يهدي كيد الخائنين سن برنت وارو تعالى ان من مي دوما جوبل بخي اجي وور كيغا خامني لاي وور اك بونا بانو كوما تاغا تيغي فوي موجي اسوي رك لاي دون كون نك لي نيت كي ورا تاخاو توجور ناي سامونتك بروموم تبارك وتعالى دادي مويتو ني تامي دي لور ني موي جيفلنتك دا فا بوك سي لي تاخ اك جامو يالا نيت كي مات جوليت بو مات سك دي رافين ني موي جيفلنتك اك نيت ني غناو بيم گمي بروم بي تبارك وتعالى mm -hmm. والله تعالى اعلم ما شاء الله يا امام كي دا فاي لاج بينيفيس تي نجاي لا تي دينا واخ ناخ نينا ام نيو خمانتني دا نيو بيغ دي تك بينيفيس بو نداو لونج ام باخنا واي ام نيو خمانتني دا نيو تي بيغ دي تك لو بري ما جاي نك لولو موم سن بروم تبارك وتعالى مو نيو جانغال ني لوتاخ ينتبي عليه الصلاه والسلام فيري كو البيع عن تراد جاي تي غرمانتي تراد ني جانغ نحو dañ xam ne lii ala wasni tafaul maanaam defante comme bu jaay ñaara koy séq kii jaay kii jënd waaye mbir mën a nekk loo xam ne kii jënd gërëm na ne lii dinaa ko jënde piri bi kii jaay tamit gërëm loolu ne d'accord na pour jaayee la ko lii lii bu amee rek daggan na ci ñoom ñaar ñëpp moo tax suñ borom tabaraka wa di ñu wax ci suratu nisa ne يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نبرم ين غاني غم القرآن بولن لك سيني على شين ديغنت تي أي تياخان مانا نخانتي موي ديلي ني تك تاجي كوميرسان بي مانا نيو نلا بريبي نانغام لاكو جاندي واخ بريبي كوي كون su boba bëgg ngir rek jaayee la ko lu seer fekk demewul noonu loolu commerçant yi nañ ma baal mais nañ moytu lu ne mel alcorane da ko tere ba tay di wone ne marchandise bi place tel la ko jënde original la fekk demewul noonu contraire ba mo am loolu tamit ñu baal ma moytu ko lo tax suñu borom tabaaraka taala dakk lool lépp ne la taqulu amwalakum baynakum bil batil bu leen lek seeni alal seen digënté yéen ci ay tiaxaan ne nak lu moy lo xamné commerçant la muy tijaara commerce tubaab la moom la olof di yaxantu mooy ay gàllankoor lu leen di indil fekk yéen a ko sabab su boobaa gàllankoor yeneen ni mënta dal mbir la moo xam ne lu leen di alag la ëllëg mu teg ci moom borom bi tabaraka wa taala mu tëjee aaya bi ni inna allaha kaana bikum rahima suñ borom tabaraka wa taala dafa nekk koo xam ne ku leen yërëm la ku bëri yërmaale la ci yéen kon bépp bunt boo xam ne da leen indil ay gàllankoor suñ borom tabaraka wa taala daf ko tëj ne yéen yi tamit bu leen faggu wala di ubbi bunt boo xam ne da leen indil ay gàllankoor ci seen dund والله تعالى أعلم ما شاء الله يا أستاذ باتاي بيروم كيسيون بي موي لاج ني نينا كو موم تي والو نجاي مي مي يونغو دانيو دوخ دي جاي اك يويو دان سي ام اي غور ньо خامتاني دان لين دي وان خالص نغي بغي تي نيوم لينين دان لين وان خالص دي لين دي لين وان خالص دي لين بروبوزي خالص نام دينا ام جيجين ньо خامتاني دان كوي نانغو واي ني بري يامو لول ناك موم نيت كي موي ورا ام فولا تي بوبام رواتينا اب جوليت kii jaay na toppatoo li muy jaay bu gisee ne tax kii nar a jënd wala boog kii day ubbi yeneen buntu caaxaan su boobaa moom na xam fi mu war a mën a yem yem cim njaayam bañoo topp ca loola. parce que nit ki bu amee ful la moo xam góor wala jigéen dina bëri yoo xam ne nit ki du la xool rek di xemem li mel wala boog di commencé di tàmbali wax yoo xam ne ci loola la jëm. su boobaa gisee yu ñu mel noonu daal di sori daw ak diineem. loola mooy li ko diineem sant. ndax ñaawteef suñu borom tabaaraka wa taala dafa ne buñ ko jegee ndax dafa nekk loo xam ne yoon la woo xam ne wu bon la te fi lay jëmee du baax ndax dalay jëmee ci sànñum borom bi tabaaraka wa taala muy mu soreel la yërmandeem dalay jëmee ci borom bi tabaaraka wa taala xatal sa wërsëg kon su boobaa nit ki loola da koy sori mu ngi daw di fàkku wërsëg gaa ndax mu ngi jaay ngir am dara waaye bu gisee bunt boo xam ne day tax borom bi tabaaraka taala tëj wërsëgam wala xatal ko ñàkk def ko nit ku ñàkk su boobaa ko gën a sori ndax xaalis yooyu ñu koy proposé poson la boo xam ne dana ko dugal ci yoon woo xam ne wu yàlla gërëmut la mm-hmm. ndax bànneex boo xam ne ay juróomi minute am ci nga ci merum suñ borom tabaaraka taala am ci gàcceeg àdduna ak àllaaxira ëllëg nga dajeeg sa borom fekk ko loo xam ne lu jéggi dayo la mm-hmm. fekk yàlla sore la yërmandeem dara jaru ko mm-hmm. kon nit ki toppatoo am njaayam mooy li gën a jaadu mooy li gën a rafet mhm. mooy li lislaam santaane wallahu taala alam kii dafay laaj lan mooy charte nuyoo ci lislaam suñ borom tabaraka wa moo ñi jàngal nuyoo mhm. moo ñu wax ci alquran ne ca suratu nisa ne isa xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw ruduha ne bu ñu leen nuyoo bu ñu leen sànnee ab nuyoo na delloo ab nuyoo comme li ngeen nuyoo waaye tamit wala boog ngeen nuyoo lu ko gën a rafet comme nit ki bu ne la asalaamaaleykum war na ci yow nga ne ko waaleykum salaam bu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah nga ne waaleykum salaam wa rahmatullah bu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nga ne waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu bu mu la ci wax rek war na nga delloo ko selon lim la nuyu maanaam kem lim la nuyu waye tamit nga dolli mu gëna rafet lolay li gën lolay la l'islam tanal julit bi kon nit ki bu la nuyoo dang ko wara war na nga fay ko batay suñu nabi alayhi salaatu mu ñi jangal ne war na ki nga xamne dafa war dafa nek ci wéeguwaay mo xam auto wala saret wala aw fas mu nuyu ki nga xamne ne kuy dox la ki doxi tamit war na ci mom mu bu rombo ki tok nuyu ko mbolo mi neew ni nuyu mbolo mi nga xamne ñu bari lañ loolu xadis la boo xam ne muttafaqun alayhi la maanaam ñuy solo xadis yu wér yëpp d' accord nañ ci ne lii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko wax mu amaat beneen riwaaya al imaamul buxaari di dolli ci ne ndaw lii tamit war na mu nooy ki nga xam ne ku mag la mu nooy ki nga xam ne ku mag la loolu ndaw li la war yooyu yëpp ay teggin la yoo xam ne lislaam da koy jàngale ak organiser nit ñi ni ñuy nuyontee ci seen biir muy loo xam ne lu rafet la lu mucc ayib la ba tey suñ borom tabaaraka wa taala dañuy jàngalaat ci sóoratu nuur mais bu ngeen yëgsee ci kër na ngeen noyoo waa kër ga buñ leen ak yi reew jox leen ndigal ngeen yëg si mais buñ leen joxu ndigal nag ngeen dellu loolooy li gën ci yéen muy aayaat yi mujj ca suratu nuur su boobaa nag foofu donte mag la yow yaa yëg si waajib la nga nuyu ñi nga fa fekk moo xam ay ndaw lañ wala ay mag lañ wala say morom sax su boobaa nga nuyu leen loolooy li gën nuyoo nag ba tey am na ci joxante loxo antar góor ak góor antar jigéen ak jigéen waaye comme foon loxo bi wala sujjóot yi loola diine jàngalewu ko ndax jàpp ne sax lu nit ki war a mën a def la gaaw voilà loolu nag uh, jar na moytu ndax di créer loo xam ne da ngay wane ne da nga tuutal sa bopp wala boog respecté nit ki teg ko foo xam ne yeggoo fa wala boog teg ko foo xam ne ëpp na laajut loola nit ki mën nga ko respecté ci jëflante ak moom jëflante bu rafet ci wax ak moom waxtaan woo xam ne wu tegginewu la waaye mm. pa ngay. teg wala di former loo xam ne lu lislaam jàngalewul la loola moytu ko ci ab jullit lu baax la lu jaaru la allahu taala alam des fois dañ koy gis ñi nuyu seeni sëriñ mhm. di leen si jootal kon fa loolu diine du ko daal loola yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla yónni ci ñun gën ñoo xam diine lislaam gën ñoo nekk ku am teggin gën ñoo nekk gën a yaru ci xeet wi koko deful loola jàngalewu ko ay saxaabaam nuyuwuñ ko noonu moom it nuyoo ko ay saxaabaam sëriñ siñ koy defal seeni wayjur ñi nga xam ne ñoo sos yoon yiñ nekk it ñooña binduñ loola diglewuñ ko defuñu ko ñoom defuñ ko seeni bàyyi kon yow mi nga xam ne defaloo ko sa bàyyi walbati ko topp ci ginnaaw bàyyi keneen di ko defal yaa war a xoolaat sa bopp yaay kan ak li ngay def ni foo ko jëlee du lu lislaam jàngale kon nit kii war na def nànk ci yu mel noonu wallahu taala alam ba tey ci nuyoo gi lay des suma sang gi oustaz dañuy ñëw rek ne salaamaaleykum mhm. <laughs> ñu bëri dañ naan salaamaaleykum boo ko waxee nit danga koy ñaanal loo xamante ni baaxut ci moom mhm. assalaamu aleykum mooy waaw mooy jàmm yaa na nekk ci yéen <laughs> jàmm yaa na nekk ci yéen mhm. waaye boo ñëwee ne salaam aleykum am ñoo xam ne aleykum la ñuy wax directement bu fekkee saam rek direct laam bi amul ci diggante bi mooy firi dee. dee aleykum mooy mooy yan na nga dee aleykum yan na nga dee mais assalaamu aleykum mooy jàmm yaa nekk ci yow ndax nuyoo bu lislaam dafa nekk nuyoo boo xam ne bu am solo la ndax nuyoo la boo xam ne waa aljanna moom la ñuy nuyoo ca biir aljanna ndax nuyoo bi njëlbeen gi comme tàmbali bi jàmm la digg bi yërmande la mujj barke la. asalaamualeykum ne jàmm yaa na nekk ci yow wa rahmatullahi ak yërmaane yàlla wa barakaatuhu ak barkeem ne jàmm ak yërmaane ak barkeem suñu borom tabaraka wa yaa na nekk ci yow kon bunta la boo xam ne ñaanal nga nit ki jàmm ñaanal nga ko yërmaane yàlla ñaanal nga ko barke voilà loolu lay nuyu bi loolu lay tekki moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne am na joo xam ne bu ngeen ko jëflante seen biir bu ngeen ko waxantee rek bi ngeen buntu cofeel seen diggante usu salaama baynakum bi ci jiitu mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wallahu taala alam leer na dañuy euh, jàll ci beneen question moom bokkul sax ci vidéo bi mm-hmm. am ku ko laaj mm-hmm. muy euh, waajur bu baax nan la mm-hmm. war a ci doom lan mooy ak waajur ci doom ak waajur ci doom xam naa ne jotoon na romb waaye waajur wu baax moo xam naa ne dinañ ci dinañ ci dikkaat mooy ak waajur yi mm-hmm. waaye waajur bu baax mooy ki nga xam ne mooy xiir lool ci ay doomam da di jub tege ci yoonu jub daal di baax mm-hmm. alxirsu ala istixaama kooku mooy waajur bu baax ndax kooko dana jóg ci ay responsabilité ni ko boromam tabaaraka wa taala jàngalee mm-hmm. mu yar leen dundal leen teg leen ci siraatal mustaqim ndax alquran yi ngi wax ne yaa ayuha alladina amanu xu anfusakum wa ahlikum naara wa quduha annaasu wal xijara suñ borom tabaraka taala ne yéen gaa ñi gëm alquran na ngeen fegal na ngeen wattul seeni doom safara ak seen bopp yéen ci seen bopp safara woo xam ne mattama ay nit lañ cay dugal nit ñi ñooy nekk mattama ñi xam bee safara sosu xam nga fegal leen loola nag li ci jiitu mooy nga yar leen teg leen ci yoonu njub buñ jubee rek mën a continuer ca loola fekk ñu jub bi ñuy ndaw nga yar leen ci diine ñu xam seen diine jàng ko di ko jëfee su boobaa loola dana leen jëriñ fii ak fële dana la jëriñ yi tamit yow way jur wi fekkal leen loola nag ci ñaar la benn nga jàngal leen ñu xam di jub ñaareel ba nga yar leen ci siraatal mustaqim wallahu taala alam yaay maam dañu amoon ci ay question dafa jeex mhm. mais bi damay euh, ñëw ci benn euh, point muy mhm. wàllu cat Mm-hmm. ndax euh, dañu seetlu ne fi mu ne nii euh, déwu ndaw yi dafa nekk loo xamante ni dafa bari loolu. Mm-hmm. noonu sax lay jaalee suñu mbokku tiktokeuse euh, bi gaañu muy Codou Fall yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko te xaare ko ci aljana yi gën a kawe naka noonu itamit Aïda Ndiaye yàlla na leen yàlla jéggal. dama gis benn vidéo am ku ne xale yu jigéen ñi dañuy moytu ay ay statut ay TikTok. ay sinabag yoy dafa daf nek lo xamanteni sama generation yi dañ ko dañ ko bëgg lool ñu ne mm. lu bari da ci laxasu ci ay chat ak yoy eh. est ce que mën nga ñu ñëwaat ci chat tiktok bi ak loolu xel yu jigen yi jël ak jigen yu mu ta ko doon alcorane ak ñu moo ñu ko njëkk téré tere mm. lim ñi alcorane tere moy bu leen di feñal seen ab comme jigen yi nga xamne ne ñu réer lañ lu jiitu lislam di ñëw ñooña ñu ko daan feeñalee ndax yalla mi ñu wax ci alcorane wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati ula bu leen di feñal seen ab comme niko jigen, ñi nga xamne ne dañoo réer ñi jiitu daan defé xeyna tiktok tiktok bi gaay yi def Mom loolu rek lañ ci jublu amma li nga xamne ne moo di cat nag moom yonte bi alayhi salaatu wasalaam mu ñuy wax ne beut deug la lam ñi tamit deug la waye nit ki dañu dafa wara sam bopam ci feñ loo xamne warul feñ mo xam góor wala jigen sam bopam jema xoolee tamit gëstu bu waax li ko diineem may muy jëfee loola waaye li ko diineem tere mu bàyyi ko su boobaa loola dina ko jëriñ tiktok yeeg yii yëpp ay xeet la yoo xam ne naam nit ki mën na ci feeñal loo xam ne lu baax la loo xam ne jullit bi mën na koo jëfee mm-hmm. waaye tamit di ci gën a bëri ay loot la koy indil nit ñi ay lot la indil tamit ki ko def moo tax nag lu lu ci nekk lu arrivé nit ki war na xool bala mu ciy dugg xool li ko ci lislaamam may digal ko ko waaye itamit li ko lislaamam xañ tere ko ni li waro ci taxaw waro ci jéggi dayo motax alquran di ñi wax ne wala taxfu ma laysa lakum bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaay kaan anhu masula ne yow julit bi bul taxaw wala di jëf lo xamne ne ko ben xam-xam ndax bët ak li nga xamne moy noppay muy deg sa deg sa xol yoy yeb dafa nek lo xamne ne luñ lay laaj la kon lépp lo xamne ëllëg danañ la rendre compte xool noo daan doxee ak noo daan jëflante nit ñi ak loo daan jëf yow ci sa bopp suba war nga def attention bu baax a baax a baax ci yu mel noonu ndax alxuraan dañuy wax ne ëllëg borom bi tabaaraka wa taala dana tëj làmmiñ bay loxo yi di wax tànk yi di seede ni dëgg la kay man maa fa demoon maa ko témoin woon su boobaa nag ki nga xam ne ab safaan la doon jëf kooka du fa mucc moo tax alquran di wax ci suratu yaasin ne al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun te ñu loola ak taxawaay booba cër yeeg yépp duñ wax ak a seede lu mooy loo xam ne nit ki moom la jëfoon kon dana jaadu nit ki daal di moytu yu bëree bëri ak nit ki balaa muy dugg ci dara xool lan la ci diineem wax su boobaa loola dana ko jariñ ba dana ko muy dana tax tamit dina mën a moytu ba du dugg ci yoo xam ne ab safaan la wala dana ko indil ay gàllankoor wala indi ay gàllankoor ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam te mooy ki ko sabab. waaye oustaz nit nan la mën a def ngir daw cat. yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu yooyu yëpp. lépp looy jàng lépp booy dugg ci biir toilette yeeg booy sol yére booy génn sa kër booy duggaat sa kër amul dara loo xam yonent bi alayhi salatu wasalaam bayyi nako lepp lañu suñu diine jangal nit ñi dañoo bayyi loola continue ak seen yëfi bopp moo tax lek lek am yu leen i gaar duñ xam sax lan la li mm-hmm. leen i gaar duñ xam sax lan la te ñàkk xam sa bopp mooy waral nag te nga saggan ba jéemoo xam yaay kan jéemoo xam sa diine looloy taxaw nag lu la gaar rek da ngay jaaxle doo xam sax fooy taxaw loo mm-hmm. tax cat yeeg yi yëpp nit ki mën na ci moytu mën na ko moytu te yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi jàngal ñaan gu gàtt goo xam ne nit ki mën na koo jàng suba su ne dara dootu ko lor lu mooy lu yàlla nam ma ci moom mu yegsi ci moom ndax yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi wax ne ki nga xam ne yeewoo na jullit bu nekk daa wax ne bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiun alim ñaan gi gu gàtt la jullit bi bu ko waxee ci suba si ba ngoon ngoon bu jotee mu waxaat ko ba bës set jot dara du ko dal loo xam ne ci nit ki lay bàyyeekoo te rafet na te jaadu na lool te sunna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàngale ko muy sunna gu dëgër ne nit jullit bi nay taxoo njàpp fu mu toll jullit bi nay taxoo njàpp fu mu toll su boobaa lépp lu nit ki def ci xeeti liggéey du yegsi ci moom bët yeeg làmmiñ yeeg yooyu yëpp dana ci mën a mucc loola dana ko jëriñ mooy yi nga xam ne mooy ay cat ak ni mel wallahu taala alam macha allah yaa imaam tontu leer na li lañu ñu amoon ci ay laaj yu ñu jëmale ci yow. ñu bàyyi la rek ñu daal di tàggu. jërëjëf soxna Fatou laaj yi am na solo yàlla yàlla may ñu dégg ak topp defal leen ko. yàlla yàlla jëriñ ñu jëriñ leen yàlla yàlla dëgëral ñu kàttanal ñu yàlla yàlla sàmmal ñu suñu diine. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وسلم